International Forecast. Thanks for being a part of today's podcast, and do have a wonderful evening. And from the weather, a reminder of our top stories before we go. Lawmakers have ratified three financial agreements between the Gambia and three multilateral lending institutions. South African businessman Gerhard Dreyer has imported a resilient variety of granite for cultivation by farmers in Kiangiforong and environs. Malian youths have taken to the streets of Bamako calling for the emancipation of the north of the country as others are preparing to take on the Tuareg separatists. An attack on a pro-Assad TV station in Damascus and an elite Republican Guard base by rebels have left more than 100 people dead. Well, you can also follow the day's stories and other GRTS programs live on our website, which is at www.grts.gm. There you can also monitor GRTS Radio live. Well, that brings us to the end of the news. Thanks for watching and have a wonderful night. Beginning June 1st to December 31st, 2012, GRTS Marketing brings you attractive offers for your businesses. Summertime. Beginning June 1st, you can enjoy our discounted summer advertisement packages. The European Nations Cup, the world's most watched tournament, kicks off in Warsaw, Poland in June 2012 bringing a collection of the world's finest play. The UEFA Champions League commences in September 2012, and this is the world's most competed and coveted competition, which is followed by millions of people around the world. Come partner with GRTS and advertise your products and services during this special promotion period. For those who pay upfront, you will enjoy a huge discount. Call us today on 4378775 or 4377214 or better still 4375692. GRTS. waa Subway Gambia ci njiitalu ajaratu Ndeye Conté Diallo di yëpp di xaali jëm ca Bakau Stadium Saturday 30 June 2012 lamb ji nar neex Olof Ndiaye dafa am lu mu wax nee na nettali daal ci lamb ñu borooma ay ndaanan from Dakar Sénégal grand combat bëri de lutte Ibrahima Ndiaye ci Dakar Sénégal di jàkkaarloo Baye Mandiaye bu école de lutte Balla Gaye ca Sénégal gaañi du fa yam TFM di yegsi Lamine Samba ak ñi ko nar a dar Kouthia ñii yi ay ndaanaan lañu ñu ne bés su tuuti borom lay tollool mu nar a nekk rek drapeau your excellency docteur Cheikh professeur Alhaji Yahya AJJ Jammeh VIP 300 dalasis covered pavilion 100 dalasis uncovered 50 dalasis school children's 25 dalasis Saturday 30 June 2012 ca Bakau Stadium lamb ji mooy coow li ci réew with evangelist Doug Howard Mills, the entire body of Christ and all churches in the Gambia presents a four-day power packed miracle campaign dubbed the Healing Jesus Campaign with God's anointed servant, the evangelist Doug Howard Mills. It's going to be a miracle and healing galore from the 8th to the 11th of July this year at the Independence Stadium, Bacau, 6 p.m. each night. Yes, it's the Healing Jesus Campaign with evangelist Doug Howard Mills. There will also be a three-day pastors and and Church Leaders Conference, as well as a free medical outreach, free medical care for all, free drugs for all to cater for all illnesses. Yes! Free medical care for all, free drugs for all to cater for all illnesses. The lame will walk, the blind will see, and the deaf will hear. The Healing Jesus Campaign, Evangelist Dag Howard Mills, a festival of healing, peace, blessings, and prosperity. Subway Gambia ci njiitalu ajaratu Ndeye Conté Diallo wa di leen indil la bëreet yoon yëpp di xaali jëm ca Bakau Stadium Saturday 4 June 2012 lamb ji ndax naa neex Olof Njaay dafa am lu mu wax nee na nettali daal ci lamb ñu boroom ay ndaanan from Dakar Sénégal grand combat bëreet doo kii di Tapha Tine bu école de lutte Ibrahima Ndiaye ci Dakar Sénégal di jàkkaarloo Baye Mandiaye bu école de lutte Balla Gaye ci Sénégal gaañi du fa yam TFM di yegg si Lamine Samba ak ñi a dar yi ay ndaanaan lañu ñu ne bisu asalaamaaleykum mbokki Gambia ñu ngi leen di nuyooti rek kenn ku nekk ci turam ak santam di leen yëgal ne rek seeni xarit seen soppe seen àndandoor ñi ngeen taamu ñoo toogati fii di waxtaan ak yéen waxtaan woo xam ne dina dugg ci seen xol waxtaan woo xam ne dina leen neex waaye nag balaa may tàmbali damay njëkk rek jéggalu ci waxtu wi nga xam ne door nañ ko boobaak tey yéen ñu doon séentu waaye gisuñu ci waxtu wi li ko waral nag loolu du suñu coobare waaye ñu ngi leen di jéggalu ci loolu tey nag ñu ngi toog fii. ñun la rek waa Gamcel di joxe rek joxe boo xam ne dafay ànd ak maanaa joxe boo xam ne doo sonn ñu jox la joxe boo xam ne ñu la jox dina la neex dina neex sa waa kër te kuy sa xarit maa sa dëkkandoor dina ko neex ndax lii lay jox dafay doon lu baax li lay jox dafay doon loo xam ne dafay rëy ñu am rek ñi nga xam ne ñoo toog ci Gamcel toog ci wàlli joxe bi am xol yu rëy lool di joxe lu ñu joxe rek xeeb luñ joxe rek ne xeeb naa ko nee ñu joxe naa tey waaye dinaa joxe ëllëg ndax man damay joxe rek ndax yéen a ma ñor ma di leen jox maa ngi toogal nag Ramou ñas mi nga xam ne moo yore marketing bi ëmb ko di ko def ba mu baax Lamine foofa nga ne ñu ni ci wàll gi di def ba mu baax Ramou tey yaakaar ne dafa am loo war a joxe nga ne da ngay bett nit ñi jox leen lu rëyati ma ne yow lu rëy rek nga mos si joxe xanaa da ngay dolli waaye yow joxe rek ngay def Ramou tey joxe boobu nga xam ne yaa ko fas yéene jox réewi Gambia fas yéene ko joxe nag muy joxe boo xam ne dina neex ñi ma ne la woon dinaa la laaj Ramou joxe boobu joxe lan la. asalaamualeykum ñi ñu seetaan comme ni ko ajaratu Ndeye bu waxee yaay ministère ñu ngi leen a jégalu bu baax ci tardement bi because football bi dafa ñëw jël suñ time bi waaye nag ba dara yàqu ci ndey waaw ñu nuyu suñ audience yi nga xam ne ñoom lañ am fii nii tey ñu ku ci nekk jóge fu sori ñëw ba fii ñu ngi leen di nuyu maa ngi nuyu suñ collègue si jógee Gamsel foofa Fofana aji ndey di nuyu ñi ñoo seetaan tam di wa asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu nag te ajaratu niñ ko fi di faral di defee rek at bu jot dafa am lu rëy loo xam ne dañ ko dee def loo xam ne léegi client yi dañ leen ko miinal <laughs> ñu miin ko fi <laughs> tàmm ko fi ba <laughs> su jotee sax dañoo wax ne koo dajee rek mu ne ñu xanaa léegi tey de léegi tey ndax liñ tàmma di ko fi am mm-hmm. Mm-hmm. waaye nag mm-hmm. waaye nag soo gisee nag tamit mbir mi tëddee ni mu tëddee nii Gamcel daf di alali nit ñi ñun ñëpp ñoo ko moom te li ñëpp moom nag ah toujours rek da nga da nga da di nga rafetal. <laughs> ba pare texte di nga. Mm-hmm. di nga nekk nit ku yaatu. di nga nekk nit ku am xol bu rëy sooy xalaat danga xalaat loo xam ne tam moo baax pour ñëpp. Mm-hmm. nekkul loo xam ne rek njëriñi benn nit la. waaye du ñëpp laa njëriñ. ajaratu moo tax ñu xam ñu wax ne daal. Mm-hmm. lépp lu ñoo def rek mm-hmm. dañ koo def seet ko ci nim neexee nit ñi mm-hmm. ñu defee ko noonu mm-hmm. waaye nag tey liñ ma laaj ma dellu ci ñun toujours dañ dee yóbbu ay nit màkka màkka gi